jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ñu ngi am mbégte ànd ak yéen ci seen découverte ak euh, ku ñuy seet si nag tey xam ngeen ko euh, danañu présenté euh, moom mooy kan dëgg-dëgg ci 28 Pro TV ñu ngi am mbégte di leen dalal di leen nuyu di leen ziar baax a baax Baye Alla si la la ko askanu Touba gën a xamee Baye Alla ñu ngi lay nuyu. Sidi ñu ngi lay fay di nuyu ñi nga àndal ñëpp. ci jàmm ak salaam. Mhm. Baye Alla Sylla Alla Sylla nan la ñu gën a xam ak moom mooy kan. Baye Alla la ëpp ñu koy wax mais Aliou la. xam nga Alla moom du tur. Mhm. Aliou Sylla laa tudd. Mhm. dëkk Touba. Touba Madiana. waaw Touba euh, Madiana. Baye Alla fu euh, àdduna fu mu jàngee. le temps que muy yëngu ci li nga xam ne moom la ñu waaj ñëw léegi muy wàllu économie ak yooyu. waaye lii moom mu ngi juddoo ci la Dramane yoroo ci la Dramane foofu la juddoo mm-hmm. yoroo fa tàmbalee liggéey nag Ndakaaru mm-hmm. loolu daal mooy sama. jóge Ndakaaru ban année. jóge Ndakaaru 86 ay septième mois dem Amérique. Mm-hmm. jóge fa nag ñibbi si Touba. 87 ci fin ba le 25 décembre ñu gis Touba. Mhm. boobu ak léegi yaakaar naa gënnaatuma mhm. lu bari Touba. Euh, yaa ngi ci Touba di fi yëngu ci euh, commerce ngay def euh, lan mooy sa liggéey ci biir Touba. mooy sama liggéey ci Touba kay mooy comme li nga wax rek man commerce laay def ci lañ ma xamee. Mhm. ci laa nekkit. ci la suñ suñu borom di dimbalee itam comme ni may dimbalee. moo ëpp ci sama yëngu daal commerce. Mhm. ci sax ndaw mën nga cee dellusiwaat ci loo ñu mën a fàttali loo xam ne doo ko fàtte ba mukk muy lu la neex laataa ñu ñëw ci safaan bi muy lu la naqari. comme lu ma neex lu ma naqari moom yooyu li ma ci ciy remarqué bariwut en tout cas li ma ci gën a neex moom bari na. Mhm. li ma juddoo nekk ab taalibe rek laa xam ne am naa lu ma neex. Mhm. yàlla dimbali ma tam ma nekk taalibe ba xam ne sëriñam ku ko bëgg la mm-hmm. yooyu bokk na ci li ma neex mm-hmm. bëgg na ma sama xarit mm-hmm. mag la des fois sañ waaye teewul bëggoon na ma sama xarit moom bokk na ci li ma neex waaw léegi ci biir Touba gi nga xam ne yaa ngi fi yëngatu ci wàllu commerce euh, tey Touba bokk na ci maanaam euh, dëkk yu gën a rëy ci Sénégal deuxième ville du Sénégal mais sur le plan économique Euh, ñu jàpp ne maanaam koom mi ngi fiy dugg bu baax a baax a baax yéen mu yëngu ci wàllu commerce comme boobu noonu di fi dugg te nga xam ne màggal la ñuy gën a séntu ni des cent des milliards moom moo fi dugg comme ay deux cent et quelques milliards muy budget màggal gi tey koom-koom boobu noonu ndax jàpp nga ne ci jamono ji ñu nekk mu ngi gën a yokk walla dafa am benn bees. waaw comme Touba moom mën naa laa wax ni la benn jamono bu nga xam ni nekk li parce comme li nga wax rek dëkk bu mag la deuxième ville la ci pour ñun niñ ko gisee ñun ak yokkute rek lañ gis bu baax ci liñ xam ci liñ fekke lu tax yokkute lañ gis bu njëkk ñun daaw ñu gis kuy wàccee conteneur lu bari te léegi wala alhamdulilah macha allah xale yu ndaw yi sax dañ koy wàcce comme Touba moom lim laaj comme ni ñu koy wax rek commerce la ba nga xam ne ku jub rek ci mhm. Mhm. Euh, léegi nag commerce boobu noonu ku jub rek ci nga bokk yow euh, yàgg nga ci yaa ngi ciy yëngu comme ni nga ko waxee noonu euh, tey soo ñu doon maanaam natt maanaam ci wàllu commerce li nga xam ne moom la nit ñi gën a bëgg ci commerce bi ak nu muy doxee wala bokk service du commerce ñi ngi contrôler commerce bi comme ni muy jaaree ci yoon jaar na ci yoon wala jaarut ci yoon. service de commerce ñu ngi koy contrôler wala contrôler xam nga tubaab bu dëgg yàlla. dëkk la bu nga xam ni bu yaatu gannaaw la mais lu bari ñun ci liñ fi fekke comme niñ fi duggee nii léegi man gis ma ko gis loolu nag ñun xamuñu lu ko waral en tout cas benn xëy na ci dëkk bi la wala ci nit ñi wala ñoom dañuy làmb rek ba xam nga tubaab moom day làmb rek comme ni sëñ bi doon wax rek ëpp dañuy làmb dañuy xool ba xam li ñuy wax naa jànkatu tubaab loolu la dafay xool ba xam naka la la mën a naxee rek loolu loolu lañ jàng loolu lañ leen a jëkk jàngal gannaaw mhm. kuñ seexul yàggee ak dañ lay jéem a nax ba bañ koy tële yow mos na nga dal li ñu mel ñu jéem laa nax ak yooyu ah, waaw loolu moom <laughs> man xam wala yooyu yaay naxaatee léeg-léeg man donga laa xam nga mooy comme li rek loolu man ci kilifa laa ko dégg maa ngi koy bàyyi xel mhm. di ko bu baax ndax ku ñëw ni tamit ñi ngi nañ liggéey boo defee nii da ci mën a gañ nga ci mën a def <laughs> commerce bi rawatina ci marché occas boobu noonu nga nekk di fa yëngu euh, est-ce que jàppoo ne yi nga xam ne yéen ay commerçant yi fa nekk marché bi ñu moderniser ko defaraat ko parce que marché bi bëri na maanaam lu bëri loo xam ne maanaam ay jafe-jafe lay indi muy ci kanaal yi nga xam ne ñu ngi ci biir ñu ngi gis ci biir place yi tamit ci maanaam doxalin ku nekk samp fu la neex euh, recadrer ñooñu nga xam ne moom ñoo fa nekk wala yéen tamit ngeen daje waxtaan ba mën a defaraat marché bi est que loolu yéen a ciy xalaat parce que marché Ocass gis nga ni mel moom. donc moom nu a mel moom. ñun gis nañ ko. Mhm. ñu ngi koy dund. waaye nag dund gi teewul nag tamit ñun liñ bëgg a def nekk rek nit ñi nga xam ni ay taalibe lañ doon parce que ñun biñ gisee marché bi xam ko ba léegi gis nañ ni ci kilifteef lay dox. Mhm. yaakaar naa kilifteef googu mu doon dox nag. ba tey rek ci la nekk moo xam ne ki ko yilif moo xam li mu bëgg. Mhm. ñun duñ ko ni lii lañ bëgg ñun li ñuy fexe daal mooy dinañ ci dox di ci dox doxinu taalibe dinañ gis lu nga xam ne lii xay na defar ko moo gën mhm. waaye ñun du war du du ni ñun ñoo ko war a wax mhm. ñun dañuy toog rek déglu ndigal ñu mhm. ko sëñ bi jox ñu di leen déglu waaw ñu dem ba ci biir gis la euh, ngay yëngu daal di fas yéene dugg ci langue politique bi kañ nga fa dugg ak lu la fa dugal waaw langue gi mooy comme noonu ma la wax li ma ci dugal moom mooy nekk ci dëkk bi am xolu mën a dimbali dimbali googu mu doon dimbali nag moo moo ma poussé ba ñi ma doon ci àndal ci dëkk bi ñu bokkoon bëgg-bëgg xëy na yàlla def dimbali woon ma ma am xolub tamit man leen dimbali loolu moom ma ci dugaloon ba dem mujjoon ñu dem ñu ni ma ñun yaa ñuy jiite hmm. yaa ñuy jiite jooju nag moom ma ci sonal yaa ñuy jiite ci lan ci ci politique bi politique bi comme fan ci ban période la ci fépp yu bëri ak non non am na foo tàmbale sa politique am na fu mu tàmbalee sama tàmbale mooy bëgg-bëgg rek duut woon lu ma doon falu du ma doon xëcc li mhm. ñu bëgg nekk Touba comme ni ñuy Touba mhm. Touba yaakaar naa yàggee si nañ politique mais bëgg fee nekk leader yombut woon bëri bëri fi woon mhm. jamono yi nag dañoo nekkoon ci suñu bëgg-bëgg rek am ko nekkoon ci bu baax ñi ma ko doon àndal nag yàlla dimbali woon ma xay na ñu ci ëpp maa leen tane woon xëy na tane googee ma leen doon tane itam moo ma bayul ba léegi comme comme bàyyi li ni ñu koy waxee rek maanaam li ci ëpp mooy du dugg lu nga xëy da cay waxantu lu muy dugg te naru ko bu jënd ko. waaw mais ban parti nga njëkk a milité. wala parti bi nga nekk nii rek moom nga mos nekk. moom parti bi moom milité woon laa nekkoon loolu lu leer la. moom ca laa njëkk a nekk. PDS doon ban année. doon jeexee année yi fi nekk yàgg na ay 88 yooyu yëpp fi la ma fekk. bi Abdoulaye di joxe ndigal yooyu yëpp. Hmm. Hmm. bi mu joxee ndigal ñun ay morin lañ dañoo def li sëñ yi hmm. te ba tey jii noonu rek. lañ fi nekk comme. loolu loolu loolu jëlee ci Abdoulaye Wade. PDS lan moo la fa jëlee. dafa jeexal. non maanaam jeexal na mais part bi quand day dox xam bu jeexalee. mais nag ñun comme ça ay liggéeykat lañ. Mhm. dafa am ñun topp ñoo xay daf ñu dañ leen a war toujours di leen dimbali ci suñu wërsëg. Mhm. di dimbali nag ay doomu aadama pare tam wàññi ko tamit buur nekk fi teew fëloo ko tamit. Mhm. buur soxla la woo la. ay yoon. normalement war nga mën a dem nag jàpp ci moom ànd ak moom. ànd. tamit di jàppale. sama dégg-dégg moom mooy kon yow euh, danga nekkoon ci Ablaye Wade di fa liggéey di fa ba nguur gi daanu ngay toog rek toog toog toog ba ci àgg waa APR soxla la woola wala yaa dem seeti leen. man mosuma leen a seeti ñoom ñoo ma woo ay yoon. Mhm. ci fan la woo. fii la ñuy wootee. maanaam ci fan la xam nga am na élection bu ñëw ah, dem nga pale toog ak sama xarit ku ñuy wax Moustapha Sylla mm. loolu yaakaar naa kon su ma nee su ma la nee ñoo ma woo rek ñoo woo. mais Moustapha Cissé Lo kon moo la yóbbu. Ah, moo ma fa yóbbu waaw wax dëgg mhm. yàlla. moo ma booleeg président euh, ñu bokk waxtaan. Mhm. comme mag ak rak ak xarit ak mbokk. Mhm. ñu bokk toog waxtaan li ñuy def ci pale bi wër pale bi visité ko fu ñu war a dugg ñu dugg ko kooku yaakaar naa. loolu rek moo leen fi yóbboon dem visiter ci palais. mais après yow boo fa dëkkee tamit day mel ni yow demoo mais visite palais est-ce que am na njëriñ. wala boog visite visite de kii la. lan la war a wàññi tam. Ah. am réew mën nga ci dëkk ñu ni fii la président bi nekk nga visite ko hmm. mais loolu dañ ko doon la doon visiter loo palais ba ci yàgg pour jéem la euh, convaincre daal li xaar nga ne ah man kat tey ñëw naa palais kat kon maa ngi soog a dugg pale ci nguurug Macky Sall kon xaar ma dem jàppale ko. déedéet man njëkkumaa dugg palais ci nguurug Macky Sall mais dugg palais nekk ci citoyen bu ne lu baax jamonoy Abdoulaye Wade duggoo Palais. dugg naa Palais mais gis buur jox ko loxo rek sax dafa am lu muy jariñ ci doomu aadama uh-huh. jox ko loxo xëy jox buur loxo yombul. Uh-huh. kon nag kon gis Palais dem Palais wax ak Palais borom Palais dara nekku ci. waaw li mais li la neex bi nga ñëwee ba euh, li la gën a neex ci APR ba nga ñëw maanaam mu jar la nga toog fa euh, loolu moom lan la ban ban ban mbir la lan lan la fa convaincre. amu ko dama la wax ne la man dama nekk liggéeykat. waaw yor njaboot. Mm-hmm. yor tamit militant. di nga leen war a mën a defal lépp su kee sa doole jëtu ko te xëy na yaakaar nga ni boor mën na ko nga ànd ñoom jàpp ci boor mhm. ngeen ànd liggéey mhm. nga mën leen di téye sa sa militant mhm. nit nag moom li mu war a def mooy fexe rek ba ay militant am mën leen a téye ba ku mën ci falu itam soxla la yaa ngi politique dëgg-dëgg politique moom comme li ma la ko wax rek politique tubaab maa ngi koy def waaw di tax ma koy def nee naa la man dem naa ba bu ma ko bëggoon a bàyyi tey du ma ko man day jafe ci sa militant day jafe que ñi may àndal duñ ma bàyyi comme nag duñ ma bàyyi tam te nga xam ne tamit maa ngi ci yëngu mhm. di ci mën a gis sama bopp mhm. yaakaar naa doonu lu nga xam ne bu ma xëyee ne naa ko bàyyi nit ñi moom te du xam nga ne métti na lool trop waaw métti gi xam nga yow da koy xam da ngay duñu seen ñuy dem nii rek mhm. waaye li ci nekk lépp doonul luñ lay mën a wax ñun dañ ciy nekk rek wéy ak suñ sutura waaye yombul xam na ni yombul. nga koy defee ci yan moyens sa propre moyens xaalis sa xaalisu bopp wala boog après danga koy def ba pare mu am visibilité après ñu seet si la ne la kat euh, waa dégg nañ sa activité yi nga doon def am ñu remplacer la ko ak temps bi wala ñu doubler la ko. xam nga yooyu yëpp moom dëgg la. Mhm. dañuy wax ne adduna moom teen bi moom boo fa nekkee benn nga am baag rot wala bu yàggee borom baag fekk la fa rek nga rot. Mhm. kon yaakaar naa ku ci yàgg rek te ñu woon li ngay nekk dëgg la. du ñàkk xëy na nga mën caa jariñu wala nga mën caa jariñu mm-hmm. loolu tam bokk na ci luñ mm-hmm. ci mm-hmm. euh, maanaam sa alal mi ngi ciy dem te séentuwoo ci mooy li ma waaw mais xaaral mi ngi lay bu ci dee dem bu ci dee dem waaw xëy na bu yàggee mën nga gis remboursement waaw moom boobu wax ba léegi nii yaa ngi gis remboursement waxuma ni maa ngi koy gis xam moo tax ma wax la xam nga politique moom mën nga gis remboursement mais mën nga gis tey nga def sa alal dara dikkal la mais bu dara dikkaat jooju da cay dem rek bu politique moom li nga wax rek doonu lu yomb doonul ne tamit nit ku nit ñu nga xay dañuy dox ci ci ci dox comme ni ko nit ñi defee politique politicien mhm. te ñun du ñooñu ñun dañoo nekk ay liggéeykat gëm suñ bopp mhm. gëm gëm suñ bopp nag lu ëpp ci liñ ci bàyyil li ëpp ci li tax suñuy temps topp ñuy ci la ndax doxuñu di diggee mhm. li ñuy diggee mënuñu ko mbaa suñ ko manee ba pare diggee ko ba pare man bañ koo def bokkuñu ci ñooñu dañoo doon nit ñu nga xam ne ñun gëm nañ suñ bopp gëm gi mooy bëgguñu képp kuy jóg rek taxaw dem bëgg ñoo yeb ci ma waxoon lii defoo ko mm-hmm. Mm-hmm. ñun dañoo bëgg nit koo xam ne lu ñuy dugg dañuy xam ne lii dugg nañ ci mm-hmm. mu nekk natt ñu xam ne nag lii ñoo ko waxoon suñ demee nag ba nga xay dikkal nañu ci wala leneen dikkal ñu lu ko mën a def ñu fexe koo def rek Baye Alla euh, def ngeen ko ci Malick Mbaye bala bokk fekk nga ci nguuru Macky Sall sept ans ngeen dem di liggéey di liggéey ba amaat beneen mandat mais Touba dëgg dëgg dëgg yéen APR gii ngeen nekk te mun leen a gañe Touba lan mooy seen problème yéen yéen responsable APR yi. xam nga lan moo tax mun ñoo gañe Touba ñun wax dëgg. xam nga la ko wax mais liñ mën a xam ñun fi ñu fekkoon APR mu yokk te mu loolu lañ mën a xam. Hmm. liñ mën a xam mooy xam nañ ni am nañ suñu baas xam nañ baas bi ni yow itam xam nañ fu ñuy dem dañuy. ànd ak moom. Mm-hmm. xam nañ tamit li nga xam ne doon nañu la ko def loo muy campagne wala muy dugg ci biir nit ñi saafonte ñoom def nañ ci liñ ci war a def. Mm-hmm. te am nañ yaakaar na yaakaar ci tamit ñin ko doon defal ñun woteel nañ ñu. Mm-hmm. am amaa nag lan moo tax dëgg-dëgg affaire mënut a gañe ñun mënaguñ koo xam li tax mënuñu koo xam benn muy diggante Macky Sall ak waa Touba waaye jàpp nañu ne ñun suñu diggante waa Touba mhm. mais loolu nag moom mooy problème bi diggante Macky Sall ak waa Touba euh, xam nga li li liy waral moom mooy présidentielle 2012 bi ngeen fi jëlee euh, bi bi leen fi jëlee jamono ji nga nekkee PDS euh, dañ leen fay jëlee parce que dañ leen a ci biir Touba wala boog boog fekk na si réew mi ngeen gagné ba mu des Touba ci yeneen yeneen parti ci réew mi après nag léegi ngeen ñëw présidentielle yi ñëw di dox di dox affaire dafa mel dafa wëlbatiku daal mënul te leen am dara Touba yéen ngi wax léegi naan xamu leen lan la. xamuñu lan la xam nga xamuñu lan la ñun li ñu tax mu ñu la wax ni la dut baaraam lii la ñun liñ doon def mooy bi ñuy nekk PDS di dem ci suñu urne it wax dëgg yàlla gañe ci mm-hmm. def ñu ko woon affaire gañe wuñu yaakaar naa affaire gañe Touba it yaakaar naa amagul woon mm-hmm. comme loolu téyoon ba gañewu ko ba léegi xëy na lool moo moo ko bàyyi yaakaar naa kon donc problème yi ay réalisation la yoo xam ne am Touba boo xam ne ba tax ngeen gagné gisuñu fi dara loo xam ne yokk na fi ci nguur gi defar ko. Euh, parce que tamit euh, loolu tamit bokk na ci liy gagné ay élection bokk na ci mais yaakaar naa affaire ñëkkul ñëkkul def dara mais nag am na lu des am na lu ko desee yaakaar naa bu amoon ñu nga xam ni tamit gën nañu gën nañoo bëgg affaire wala ñu gën a gëm seen bokk mm-hmm. yaakaar naa soppiku dana am ci li ma yaakaar ndax dëgg la affaire mi ngi def len nattab li mu def li mu def nag mooy bi mu ñëwee li mu njëkk a def mooy li mu am da koo suul xëy na ñam ko suul du neex a gis mhm. xam nga ñëw dugg ci canal yaakaar naa politicien bu ma waru koo def ñëwee li mu am donte la ñu ngi wax 7 milliards ñii naa 10 milliards 10 milliards li mu waroon a def mooy bu ko tegal ci kaw rek ñi ñi gis ko mhm. mais fi ñu ko def nag ñu bari mënuñu koo gis te taxagu tam mu mel ni mu ko bëggee kon yaakaar naa lim doon am moom politicien moom lim am li ngay def moom nañ ko gis c'est que seen discours yéen benn la moom mooy que saa bu ngeen waxee ngeen ne ah en tout cas mënuñoo gagné Touba waaye mu ngi yokk ndànk-ndànk euh, di yokk ndànk-ndànk ba Macky Sall moom deuxième manda la wax deux mandaa lay def dem te ëllëgi APR xamu leen ko. xam nga deux mandats ma dem moom nga wax moom nga ko tal mais bu defee deux mandats te nit ñi bëgg ko ba tey mu toog itam. yéen baal yaa ngi bëgg a dugal nit ñi ci beneen mbir de. yaa ngi bëgg a dugal Macky Sall ci beneen mbir de. beneen mbir du man maa ko ciy dugal. waaye nag bu ko fi defee ñeneen na ko fi moom moo ko def. ah affaire moom affaire moom population moom kenn mun leen a kii moom léegi ñoom. mënee su waaye nag moom moom constitution bi rek ngay topp. waaw constitution bi nag moo xam nga nag dafa wax ne benn boo xasee ba am benn mandat renouvelable jeex. benn la am. ci benn lañ ko signé. ba la deux mandats le président Macky Sall di def ci réew mais bi ñuy defaraat coalition bi ci benn la nekk rek loolu moom. sa dégg su ma su ma dégg su ma déggee daal li nga bëgg wax moom mooy que ni Macky am na droit posé waat candidature. waaw yaakaar na ko parce que loolu dañ ko fee def ba pare. bu ko defee réew mi day dana yëngu kon waa Sénégal yéen ñi ñuy seetaan mais réew mi ci dal rek lay mujj fu mu yëngu jëmit dal rek lay mujj. Ah. te sóoraale ngeen ne loolu askan wi duñ ko nangu. ñun sóoraale wuñ ko. mais dañu la wax ne la boo ko defoon it dañuy xam ni defe moom nit ñi def ko te politiciens yi ñoo ko fi def. Mhm. loolu dañuy xam ne rek defaat la. est-ce que bokkul tamit ci manque d'éclairage bi nga xam ne dëkkee nga ko fii ak waa Madiana comme li nga koy sentiré yow euh, nga xam ne askan wi ñu ngi koy dund bokk na ci tamit li nga xam ne te parfois ngeen am ay jafe-jafe ci ñàkk a gañe ñun jafe-jafe ñu ko mën a barile. li tax yéen waa Madiana man man laa wax de sama jëmm. waaw li tax duma ko jafe-jafe man li may def nii. nit moo may romb sëgg mais fa su ma yéenee romb nit sëgg ci li ñuy seq hmm. kon man amuma yaakaar ci ni am nañ ci jafe-jafe tooguma woon nit for la force maa ma di am hmm. waaw tooguma force force yite ma di hmm. dañ doon politique nekk suñ bëgg-bëgg ñu dem ba dëkk bi léeg-léeg ñu ñu di ko séddale ñu koy séddale nag xëy na am nañu bëgg ma it ma bëgg mais waaw Madiana ñoo ne man lañ bëgg mais est-ce que yaa ngi yaa yaa ngi sentir ne ñoom dañuy dañuy dund ci manque d'éclairage bi nga xam ne yaa ngi koy sentir wala jàppoo ne waa Madiyana am na lu leen manqué ci wàllu éclairage seen rawatina seen route bi moom amul lumière. lumière déet loolu kon yow jaaroo fi xamoo la fi. bii route goudron bi. waaw goudron bi nga wax mais goudron ñun Madiyana fii la loolu nag. vraiment du du du du. ci kan la du man la ci war la man a manqué. waaw ah. waaye ñun suñ biir Madiyana gi liñ man suñ kam kàttan ñu ngi ko ñuy def. yéen yow leeral nga wax nga ci ñiy leeral uh, sa gox bi. man fii sama guddi amuma xalaat ñi fi ëpp buñ tëddee dañuy nelaw. ndax lu gàtt gàtt. élection yi fi yi fi def yéen def naa ci. alors léegi nag est-ce que il n'est pas temps ngeen toog yéen yi fi nekk ñëpp di yëngu ci APR parce que léegi koo wax. koo tudd rek daanaka ci nga xam ne maanaam euh, ay leader lañ wala ay responsable ay kilifa yu mag yaa ngi leen dégg ci biir APR. bi loolu ba léegi amagut mel na ne parti bi amul structure bu jaar yoon. loolu moom yaakaar naa fekk amuñu ko du yomb ñu gañe mhm. ku ñu jiite ku nga xam ne ku bëgg politique la. Mhm. xam nga nag mbir dafa am ñu ci nekk dañu gis ni rek war nañ cee mën a ñëw. ko tax lu def li ñu war a def dem seen yoon. Hmm. mbir ñun du ca ngeen nu Macky Sall mooy gagné wala moo ñàkk ñun ñoo war a am suñ fula suñ fayda. Hmm. fexe ba gagné. Hmm. parce que ma Macky Sall moo ñàkk. Macky Sall ay nit la fi teg. nit ñooñu nag ñoo war a am seen fula am seen fayda. kenn ku ci ne xam ne kii moo la dàq lii nga bàyyi ko mu jiitu la ci. keneen kii li man ñu bàyyi ko mu def ko. loolu nag moo fi amul. yaakaar naa bu fekkente ni am am wala jox jox. Macky Sall li mu joxe moom wàcc na. li fi def ci élection législative def ko ci yeneen élection mhm. moom su gañee wut itam kenn mënu koo wax dara. parce que mi ngi fi dugg ñun ñuy politique. Ah, li mu war a def jot naa ni. Mhm. def na ko. Mhm. kon lu ci manqué rek ci ñoon ci ci ñoon ci ñoon la ci ñenn ñi. Eh, ñun de jot na ñun li ñu li ñu li ñu doon def bu doon ñun rek duñ perte. néew mu nag am na ñun defuñu li ñu war a def waaye li xam ci politique moom li ñu la jox na wàcc ci terrain bi fexe ba. boole ci sa yëf def ko. boo ko mm-hmm. defee jot naa yu bon bon dinañ mm-hmm. mais est ce ne tamit maanaam yéen donte la yéen kilifa yi yéen ku ci nekk boo gisanteeg sa morom da ngeen saafonte waxtaan du mel ne mosu a euh, am day mel du ngeen mos am benn problème mais est ce que ñi leen di yàqal euh, du ndaw ñi yàqu jàpp leen ndaw ñi parce que ñoom ñoo boolewut nekk benn. xam nga ndaw ñi. parce que politique itam ndaw ñi ci lan bokk am na ci solo. am nañ solo mënuñu leen a wax dara nag comme ñun tamit ñi ci ëpp ñun dañ leen cee fekk. Mm-hmm. mais gis nañ ni tamit ñeneen ñi ñoo leen gën a gëm seen bokk ci wàll woowu dëgg la affaire laa bokk nag rek lu xew nga ñëw yëngu sañees na ko hmm. waaye nag li ca des tamit nag mooy comme li ma la wax rek nit dafa war a gëm boppam ba ñami jàkkaar lool bu ñu demee ci élection duñ ko war a mën a gañ mooy benn ci lañ lay jox bala nga amu des da ngaa war a def li nga war a def dala hmm. bala ngaa laaj doole nit da ngaa war a fexe ba gañe hmm. mooy comme li nga wax ci njaal benn yaakaar naa loolu bokk na ci ñun moo tax tamit bokkuñu ci ñi nga xam ne nag dañuy tambaambalu rek Ndakaaru dem dañu bëgg a bokk ci ñi gëm suñ bopp mm-hmm. di liggéey di daan suñ doolee ba man dara mm-hmm. man suñ yëgi bopp rek mm-hmm. ba jot nañ ni lu ñuy def ci affaire danañ ñu ca war a mën a boole mooy gëm gëm gi suñ bopp rek. man mosuma la est-ce que que mos nga bokk ci ab euh, liste euh, comme élection locale yi nga xam ne moom la ñuy génn wala législative euh, lu tax loolu man législatif <laughs> yow foo nekkoon man législatif man lañ taboon département ci liste bi ci laa bokkoon. Hmm. conseil départemental aussi bokkoon naa ci. Hmm. campagne naa ci woon campagne bu rafet. Hmm. la ko yàqoon xam nga ko man xam naa ko. déet lu ko yàqoon fàttali ma ko. du ma ko fàttali doon lu may jaar mais xam nga ko xam naa ko nda jot nañu biñ ci jëkkee dem. waaw yàqaloon ko ci côté 2014 man yàqaluñ ma mais xam nañ ni affaire su gëju Tuubaa xam nañ ni yàqu-yàqu la yàqu-yàqu boobu nag du lu ñuy tudd waaye nag kenn ku ne xam na ni. 2014 ñun bi ñuy dugg APR def nañ ci liñ ci war a def bañ jàpp ne dañoo war a gañe yàqu-yàqu ñëw na ñu muñ ko législative aussi man lañ ci def loolu bu fekkee yaa ngi laa bokk naa ci am na yàqu-yàqu parce que mënuma koo jiñ kenn suñ borom laa laa mën a wax ni xëy na moom la wala lu mu dogalagul euh, waaw amaguma chance su gagné mais nag man ci saa bopp moom mënuma cee mere kenn ndax nit tamit boo ñëwee ci parti ñuy def liste boole la ca nga def li nga war a def it ba yaakaar na yow war ngaa mën a gagné sa urne xëy na lenn li suñ borom moo ñëw ak dogalam muy première fois bi mooy taw bi gannaaw bu tawul deful dara am nañ yaakaar ci ni man damaa war a gagné ndax def naa sama da nga war a gagné waaw yaakaar nga ne boo ci continuer di nga man comme li ma la rek damaa war a gagné man jot naa ne suma ma continuer def li ma war a def mhm. bu ma demee élection yi ma dafa jaar yoon ñu def li ñu war a def damay waaw élection locale di ñëw. dama ci dem incha allah man affaire affaire laaj fas yéene àndal. muy fan rek département commune bi moom xam nga borom a koy tabal boppam. waaw fas naa ci yéene bokk dama ciy bokk ci yàlla amee ndax ci laa bokk. waaw commune kaay bokk kaay du kaay bokk moom da nga def lu tax ñu la kaay bokk ndax tamit bu fekkee doo sëriñ di jiite woo benn kii xay na da ngay politique ba bokk rek wala saa tamit ña koy tabbu. xëy na fexe ba nga bokk ci rek ndax tamit li tax ñuy def ay ay conseil man nga ko te yaa ngi koy def normalement bu ñuy def ay conseil war nga war nga ko man a doon. ñoom ñooy fal maire mais fii ku nekk xam ne ne maanaam euh, am na loo xam ne nii maanaam liggéey conseil la tamit conseil suñu seen liggéey ban liggéey la gannaaw bi bi nga xam ne maanaam euh, élire nañ maire bi ba pare wala boog tànneef nañu maire bi ba pare. waaw man conseil yi man. toujours dama leen koy wax ay conseil lañu doon dañ leen a tànnit tànn leen ci ay kër am ci ñoom yaakaar yaakaar jooju ñoo ci am ci moom nag ñoom ñoo war a taxaw am fulla am seen fayda di laaj li nga xam ni xaalis bi génne nañ ko wate nañ ko mu ngi fi kenn xamul ko am na yuñ ci jot a wate ba ne léegi lii dañ ko cee war a def ñu génne big bigse boobu teg comme lan nañ ci wate lu bari ñun suñ làmp madiyaana yi ngay wax ñu dafa lëndëm ñun wate nañ ko ba génn xaalis bi ba teg ko ba commencé ko jox ko entreprise ba léegi nag ñun xamaguñ. fan lañ lan moo bloqué liggéey bi. waaw loolu nag lañ bëgg a laaj ñu ngi koy laaj toujours nag ak yow nag laaj naa ko journaliste bi ñëw fu ne dinaa la ko laaj en tout cas nag. non mais xam naa du ngeen am conseil léeg-léeg. waa conseil dinañ ko am mais nag bu fekkente ne yow mënoo ŋàbb dàll rek. dëgg-dëgg conseil la ca war dëgg-dëgg doo ko mën. parce que kon conseil daal liggéeyul. li ñu war a def ñun des na. man ci saa bopp laa koy tàmbalee. Mhm. parce que des na li tax mu des mooy li ñu amanteel ak dëkk bi dafa des lu bari. Mhm. mooy loolu ma la wax rek wate nañ loolu. ay ay làmp sam poto yi ak fii léegi yëpp mi ngi taxaw. Mhm. ak yaa ngi fi lekk léeg da nga fi aw sax sa oto dal ci mu yàqu. ak assainissement bi tamit. waaw assainissement bi xëy na maire bi mi ngi góorgóorlu assainissement xëy na maire yi ko. mais nag dafa am yeneen yu nga xam ni maire bi attan na ko. war war na koo mën a def. mais loolu tamit du ñu bàyyi. maa na ko mën a def defu ko. waaw defu ko parce que maire bi dëgg la sëñ bee ko fal. mais bi ko sëñ bi falee ba noppi liggéey la ko wax. liggéey gi nag mooy conseil yi nga xam ne ñooy daje di di ñëw ci conseil bi. ñoo war am seen fula nag am seen fayda. gannaaw éclairage bi lan ak lan la. yi jafe-jafe yi fi nekk te xam ne maanaam mi ngi ko war a def bari na benn ci yow marché boobu yaa ngi ko tudd. yaakaar naa maire bi war naa mën a taxaw ni lii bëgg naa ko. Mhm. nañuy nañuy defee nii. Mhm. na na mbedd mi nañ def nii moo gën ma ñëw bàyyi kaw tali bi te la ci kaw trottoir bi yooyu yëpp rôle maire la mhm. waaye tey tey maire bi tey boo demaan sax yow taxaw fa am loo leen war a dimbalee sax di ko def da maire bi day defe yow da ngaa am loo bëgg mhm. wala da nga koo bëgg wala dara te demul noonu dëkk bi xam na ni ci baat lay dox mhm. waaye nag bu doxee ci baat bañ jox la ko ba noppi yaa war am nag fulla am sa fayda xam ne dëkk bi da ko war a liggéeyal nga taxaw nag liggéeyal ko ñoo xam ne lii am nga fulla am nga fayda yaa ngi koy def waaye gis nañ ni maire bi doxul lim war a dox conseil ñun ñi ay conseil xay na li ñu war a def dëgg-dëgg. kon daal su ma la déggee da nga bëgg daal bala ñuy tànn maanaam conseil ñu xool xam seen rôle. wax leen lan mooy mais rôle bi dañ leen wax seen rôle pour bu mën a demee. rôle bi dëgg-dëgg moom mooy gëm sa bopp rek. xalaat ne lii dañ koo dajale pour def ko ci dëkk bi. Mm-hmm. ñu fexe ba mu demaat ko ci dëkk bi. Mm-hmm. loolu la parce que dañ gis nañ ñaar ba ñett lu ci ne ñun fekke naa mooy perron bi nga xam ne ab station lañ ko def mooy ci gaaru ndox. Mm-hmm. loolu wata leen ko bis ne dañ koy def ay gazon pour fu ñuy féexlu kaay dem nañu dem li ñu watee woon gisuñu ko dem nañ dem gis nañ station bi del si 28 noonu gis nañ dañu jékki-jékki rek gis ñu koy miir xaw ma la may nañ ko sax waa mais mais dëkk bi nag dafa war am fu muy nooyee dëkk bi ci boppam dafa war a am fu nga xam ne dafa fay nooyi mais waruñu fu ñu yaakaar ne fii mën naa jar ay millions rek ñu ñu taal ko dëkk bi dafa naju fi mu ne dafa naju parce que yaa ko xam mais foofu li wër jumaa ji noonu bu amul benn bayal du mën a baax ba yàlla boobu lañ ci yaakaaroon ñu ni dañ koy defar defar ko ay garçon mais gis nañ ne léegi miir nañ ko xaw ma dañoo jaay xaw ma dañoo maye. ah mais Touba est-ce nag Touba nag est-ce nag mais mun nga fa def lu xam ne place publique la doon muy nooyee foo dëkk boo dem bu am na fa muy màkka mu muy fu mu doon fu ne am na fu nga xëy dañ ko bàyyi pour nit ñi su fa nit ñi dul mën a toogee dinañ ko def ba mu rafet boo rombee sax nga xool waaye nag boo jëlee lépp nga sàkk ko def koy bâtiment yi bu yàggee jafe-jafe rek la indi. loolu conseil daal des na. des na mhm. man xam naa ne des na mais li ko tee li ko tax a des boo fekkee àndoog maire bi dëgg-dëgg rek say wax. du fa am njëriñ nan la woo daal tànn la ci conseil bu ko defee jox la. bu ñu la woo tànn la ci conseil ba pare yow yaay nag ŋàbb say daal rek ŋàbbal meer bi daal soo ko deful doo ci bokk. doo xam lu xew. te loolu yoo xalaatoo ko de. man dama gëm sama bopp damay liggéey ab liggéeykat laa loolu laa la wax. Mhm. su suñu wootee conseil bu ma demee dem conseil ba pare li may def mooy dem sama liggéey liggéey yi laay def hmm. fexe ba mën a tekki rek xam nga dëkk bi lim laaj mooy ndimbal nga fexe ba man dara ba man di dimbalee rek des na lu bari lu ñu war a liggéey hmm. conseil départemental bi tamit euh, bokk ngeen ci ñi nga xam ne war ngeen ci liggéey boobu li tax ñuy bañ Contrebourg moom la kenn ëpp ñu fi da ngaa wax ne ñun ñooy deuxième ville mais suñu départemental loo gis ma man ko est-ce que ma ko xamut itam man xam naa ni yeneen yi ñu ngi doxal ñu ngi jéem dara wala fay sax say say say say say conseil soo amee ndaje lu bon bon nga di leen dajale sax léeg-léeg cinquante millions yi nit ñi xew ñu ko nga di leen ko def mais du ñu woote ndaje dara dara. sentiroo conseil départemental. moom day mel ni doxul mooy dama la wax ne la contre pour dëgg dëgg li ko waral xëy na opposant la. lañ la mu war a am du du ko mën am. mënu koo am waaye nag mooy contre pour ba mu ëpp daal ñun ñoo war a am fulla am fu fayda. ni nit ñuy def mooy fexe ba li nu ànd ak buur li ñuy soxla ci ci conseil départemental ñu mën koy wuti di ko indi ci dëkk bi. kon daal tey ñu wax ñu tey kon boo ko say militant boo ko wala kii jug xeex ñu pour ñu tabb la nga nekk mm. jiite conseil départemental. loolu na su ma ko mënee dinaa ko def. mais dinaa taxaw ah, maa ngi liggéey xam nga liggéey mooy. non yaa ngi ciy liggéey pour maanaam nekk mm. maa ngi ciy liggéey parti bi rek laay déglu mais dinaa def lu nga xam ne dinaa téye samay militant bu ñu ci wate ñun dinañu loolu moom lay tax ñu gañee ko danaa ko def lay tax nag ñu liggéey ba am ay partenaire buñ ci yeggee. kon candidat nga ca daal. du ma ni candidat laa de ndax candidat man du ma jiitu parti bi waaye fas naa yéene daal liggéey ba duñ danaa liggéey bañ xam ni parti bi xam ni moom buñ ca yeggee xalaat na ni man duma bàyyi. jërëjëf ñi ñu nekk ñu ngi jooy euh, jafe-jafe ndox wala. Madiyana ñi ngi koy jooy mais yàgg nañ ko jooy. Mhm. waaye day am lool xëy na duma ko jiñ kenn. ñun ñi dëkkee ci dëkk bi ñun ñoo war a góorgóorlu xool naka la ñuy dëkkee. di fay ndox wala. ndox man fay gi baax na. mais mun nga dem ba defe ni fayoo ko mun nga dem ba di ci ñàkk lool defe naa fay ko moo koy gën léeg-léeg. Mhm. parce que ñun ñii ku ci ñàkk ndox da ngay fexe ba dem wuti ko. Mhm. la nga ñàkk sa morom di ko ci ñàkk nag xëy na suñu góorgóorlu woon tamit mën nañoo bañ a fay naam mais am na lool bu ñu ko participer woon taxaw. Mhm. def li ñu war a def yaakaar naa ndox war naa mën a manqué. bañ a manqué ñun de fii néew ñu fayu ñu ndox mais bi ñu demee ba nga xam ne bu ñu defee lii koñ bi am ndox dañoo fexe ba def ko mhm. dem ba ca fa ndox ma nekk ñu xëcc ci dugal ci suñuy koñ mhm. yaakaar naa bu ko defee léegi ñi ma ko seqal ni mhm. mosuñoo toog di rootaan alors sa euh, relation ak euh, leader yi fii nga xam ne moom nga nekkal gox fii laa euh, nu mu demee sa leader yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii nga jàpp ne ñoom ñooy kàngami parti bi sa relation ak ñoom nu mu demee man sama relation ak ñoom bu ma la waxalee dëgg bëriwul man ab liggéeykat laa doonuma ko dundee politique damay politique mais bu jeexee damay dem liggéey mm-hmm. élection bi ñu demee ñu kat dama xëy liggéey sama relation ñoom nag du bari parce que nit ku la du teg lu bari am na loolu boo ko ko bëggee teg day bañ mm-hmm. foofu laa nekk mm-hmm. li may tegee bariwul moo tax am na loolu ku ma ko tegit damay bañ waaw doo bootu ci gannaaw kenn bootu gi man bañuma ko mais nay ku ko jar rek bu ma gisee ku nga xay mën na lu ma mënut ëpp na ma militant wala mu yore xam-xam bu nga xëy ne yoruma ko bu ñu maa bootu ci moom mais nag man xam naa politique li mu laaj ku ma ko gën a xam fii ci Tuubaa nekku fi mooy maslaa dem ci nit ñi li ngay diggee nit ñi nga di leen ko jox liñ lay jox mu jëm ci nit ñi nga fexe ba muy te ñoom ñëpp defuñu ko defuñu ko parce que bu ñu ko doon def duñ mën di perte Tuubaa toujours xëy na nag perte gi sax duwun ni perte élection moo ñu ko xañ waaye li ñu war a def dëgg buñ ko defee ñoo mën a perte mm-hmm. jox nañ ñuy moyen kenn nattable wu ko li des mooy wàcce ci terrain bi wax ak nit ñi liñ la jox nga di leen ko jox. Mhm. te ñun loolu dañ koy def. bu mhm. wér. Mhm. looy dénk donc militant yi nga xam ñoo ñoo nekk ak yow. militant yi nekk ak man moom li ma leen di dénk mooy fas yéene ànd ak ñoom rek. ni ma leen def ñu def man rek. ba lu ñu jublu kuñ ko songee rek daan ko. Euh, découverte la woon ak euh, Baye Alla euh, la moom lañu dañ loolu fekk ko fii ci Madiana 28 pro nag ñoo amoon mbégte bu baax a baax di la seet si seen liggéey noo ko gisee ñoom ak loo leen di xelal tamit ak loo leen di dooleele waaw man dama leen di xelal mooy comme ni ngeen def nii rek maa ngi leen di seetaan seetaan naa leen ci fu bari maa ngi jot seen vidéo comme ni ma koy waxee rek ubbi ko rek dëkk bi moom boo ci nekkee koo gis rek def ko ni sa bopp respecté nit ñi rek fexe ba li ngay gëstu tamit nga xam ko mooy lu leer rek soo ko defee yaakaar naa nit ñi ñooy sawar ci yow suñu gisee sa image mu neex leen lu am solo la ay nit ay rajo ngi dañuy ñëw toujours ni la dama laa bëgg a jël lu tàggee nag ñëpp ngay jël comme que yàgg ngeen ci dëkk bi am ngeen nit ñi jàmm loolu rek la ngeen yokk ko yaakaar naa su ngeen ko defee di ngeen dem ba comme ni ko rajo sociaux yëpp amee baax am boo ci duggee da gis sa wii day daal di dolli ku bari comme tamit ngeen góorgóorlu ba def noonu rek nekk di jël ku nga xam ni wóor na ni kii li muy def xëy na gëm na ko du ca wax lu nga xam ne doonul lu nga xam ne lu luy jaxasee nit la loolu rek lañ leen di soññi di ñaanal nag waa Touba gépp ñaanal suñ Muntaxa suñu sëriñ yàlla bàyyi ko fi ba li mu yéene lépp mu yegg te mu fekke ko bokk yi ñu ngi seetaan ñu ngi am mbégte bu baax a baax maa ngi àndoon nag euh, Serigne Mbacke Fall ci caméra bi Tara Samb Bekaay Ndiaye ci présentation bi si Diakhaté ñu leen dig daje ci yeneen jotaay ak 28 pro jërë ngeen jëf ak découverte